jéggal naa la ko ci xol. xam nga Baye Mbaye. Uh-huh. Euh, man naa la wax. Mm-hmm. man da di daaw ba ren damay défendre Adji Sarr. dëgg la. Euh, ba ma gis de mujjee gisante moom matul un mois. Mm-hmm. maa ngi fa àndoon ak François Hélène Gaye ngay dégg. Mm-hmm. ma waxtaan ak moom. gëm ko nag. kon tey su ma gisee. Euh, génn wax ne. aji def ko jox ay enregistrement yuy wane ne lii mu nekk du dëgg mhm. surprise bi daanu ci sama kaw oh, maanaam mhm. du ma ko mën a mhm. maîtriser loolu maanaam dafa mel ne coup de tonnerre bu daal sama kaw c'est normal parce que man bugguma jox ci du ay caaxaan man ab Baye Fall laa du ma dox ci tappalee du ma dox ci caaxaan merci beaucoup te damaa gis ne Ousmane Sonko mii day naxe ndax ku yor sa ñaari soxna doo dem ci salon de massage ma wax la ma wax la benn affaire bu njëkk waaw kay waaw ak alquran loolu moom dëgg la tey kenn jaraluma ci kaw Sénégal mhm. may wax loo xam ne du dëgg ci ma xam nga ku ne la jaar na ci baal waaw jaar na ci gel waaw non di taxaw fu nekk di ko wax sooy seetaan sama vidéo dama koy wax di ko nettali ci conférence waaw yàlla def ma ma dem ba nekk taaliba baay dellu gannaaw waaw li ma doon def yëpp fàtte ko mhm. kon kenn jaralatuma may fen ci kaw àddina alors gis nga Ousmane Sonko. Mhm. du ma Pastef. waaw bokk ma Pastef musuma bokk Pastef musuma gis Ousmane Sonko. waaw xaw ma ko tey xaw ma ko ëllëg. te su far di am. xarak mhm. Adji Sarr moo gën fuuf gis nga Adji Sarr. Mhm. billahi wallahi tallahi barka alquran musuma koo gis bët ak bët. fu ma ko wax du ko gëm. Adji Sarr nekkul sama taaliba boo xam ne dama ko ràññee wala ma gis ko. Mhm. soo ko laajee moom dana la ko wax mhm. mais ñëw na ci sama formation Shababul Fayda mhm. fekk fa sama commanda ci munde mu bokk ci formation li tax ma défendre ko dama dégg nit ñi bàyyi bugg koo bersi ma xam seen waa kër parce que cousino a ah, Adji laa doon sëy xamoo lool nga xam ko bis ni que tey cousinam laa doon sëy waaw mu toog Adji ma dégg ñu bugg koo bersi ma taxaw ne leen taalibe baay la mm-hmm. défendre ko ci loolu te loolu tey maan ci ba tey ba suba mm-hmm. mais mun ngaa nekk jullit mun nga nekk lépp nekk beneen yëpp waaye man ma ne aji dafa bon wala dafa def lu ma njëkkee man mm-hmm. ko billaahi wallaahi tallaahi gis nga xam nga ojoo dafa garaaw waaw mais bis boo ñëwoon Dakar yow ñu toog waaw billaahi wallaahi tallaahi su fekkee ne lu ma lay wax du dëgg Mm-hmm. lépp lu ñaseen nekk yàlla naa ci gën a yées dañoo waxtaan mën a ko aji mm-hmm. dama laa bëgg a protéger delloo la ci société bi mm-hmm. ma téye la wala ne la nii baaxul fekk na boobu wax nañ ci wax ji ba pare am xamal ma ma wax bay jooy maa ngi ko jooy yooyu tamit su ko moom mu ne xam nga moom toog na ne leen waxut ak dara loolu daf leen ko gëmloo ci dëgg-dëgg waaw waaye yow xam nga ne lu ma la nangoo jël di wax ak yow nii nangu jël di wax ak jëndu ma la de mais damay wax te yàlla sax te yowmal qiyaam am na ndax xam nga man sax moom jënd ma yomb ndax man homme de devoir laa du ma dox ci caaxaan du ma dox ci tappale xam nga xam nga dafa am loi lu mu wane waaw tey man audio yi su fekkee man maa ko génne direct man droit la waaw man lay man lay yoon di toog dëgg wala du dëgg xam naa li nga wax kay merci beaucoup mais audio yi prité na parce que fa ma tegoon ñuy déglu am na ñu ko am waaye dama la bëgg a wax na la hmm. yow man su fekkoon ne mën naa ñëw ba Casamance billaahi wallahi tallaahi barke alquran musuma ñëw Casamance billaahi wallahi tallaahi damay ñëw teg ko si sa nopp nga dégg loo xam ne su fekkee ne yow jullit nga hmm. nga gis ne li ci dee sonko daf na ma am na vidéo sonko ma ne ko su fekkee ne sonko def na la dara nga am preuve suba suba ma tëj sonko mhm. mu taxaw moom moo taxaw nettalil ma li ma lay wax nii danaa la ko wax yow nettalil la man kay maa ngi lay dégg daf ne ma mhm. dama ne ko Adji danga ba nga xamee ne lii yëpp c'est faux mhm. te yow mii nga xam ne yaay ndayi ndilli di te jëriñu woo lii su la neexee nga arrêté ko nga déglu su la neexee arrêté ko mu ne ma ma ne ko te yow nga xam ne lii yëpp foo faux mu ne ma attends attends xaaral sax suba dinaa oo euh, France Hélène Gueye ki ngay wax noonu ndaw soosu mhm. ma tiital leen mhm. soo bëggee phrase boobu mu naa la ko yónnee lu may wax du ma du ma fen man kay man li tax ma nangu laa sotal la fan yi yëpp man nee naa la dama dul dox ci dëgg bàyyi dox dul dox ci caaxaan bàyyi merci beaucoup merci beaucoup kon mu wax ma ne ma France Allergey mhm. dinaa ko oo tiital leen parce que ñii dañoo yaakaar ne en petit gami bu fi nekk ay doomeeraam lañ ñoom ñëpp seen nguur gi la ñuy bañ mu daanu moo tax ñu téye man nii bi ma fontoo waaye lépp dina leer ak yeneen tudd sooga nag tudd ay kilifa man kay maa ngi lay déglu bu baax waaw mu tudd ay kilifa xam nga man Baye Mbaye man Baye Mbaye xam nga lu tax ma nangoo waxtaan ak yow ni saabu saabu yàgg nii mhm. man damaa bëgg a dox ci man si dëgg rek lay dox man gis nga gis naa ne sañ-sañ bi ma am ba jóge Casamance ba dakaar di protéger Adji Sarr te joolaa yi ma dëkk ak ñoom te ñu mënuluñ ma tus mhm. dañ maa xam mhm. Mhm. kon bu ma ñëwee di waxtaan ak yow man damaa bëgg lépp lu ci lëndam mbay mbay man boo ma ko waxee nga man maa gën a nekk soldaar fop man sama dund bi lu dul dëgg du ma ci dox dëgg la loolu laa lay bëgg a wax nii beneen audio bi beneen audio bi mu ne ma est-ce xam nga ne Mamour Diallo moo tëgg lépp ma ne ko kan Mamour Diallo. Mm-hmm. mu ma waaw mu ne ma moom moo wax ah, booy bu sant Mbaye nu mu tuddati les petits ah euh, kii Mbaye. Amet Amet Mbaye. Mm. moo moom ne ko. Mm-hmm. am na benn xale boo xam ne légalaa dafay nekk moom rek. léegi Mamour Diallo oo ko am na ku ñuy wax maître Sow. maître Sow moo ko bindal waaw maître Sow rek la ma wax. Samba Sow la tudd. waaw moo bind ci loxoom jox ma ko loolu yëpp dana ma ko jox ma téye ko denc ko mm-hmm. mu ne ma si lañ ñëwee ñu ne ma jëlal jëlal euh, jëlal su gaa bi ñëwee fii mm. nga jéem a am superman mu ne leen waaw superman mu ne leen pourquoi ngeen may wax loolu est-ce yéen su fekkoon ne seen doom la est-ce di ngeen ko wax si mm-hmm. la ko gaa yi jëlee papa mu ne waa léegi garaawul après Mamadou Diallo moo leen indil oto ñu mhm. dugg ci moom ak booy bu sant mbay mhm. après demoon séesé wu la wax man man fekkewu mhm. moom moo wax waaw yaa ngi dégg mu wax loolu te wax na ci biir vocal yi wax ma ba ma li ma lay wax nii sama ñoon papa sax xamuñ ko ndax maa moom dañoo rusante kenn xamu ba nag man nag dugluwuma ci yàq aji saar wala yàq mag wala yàq man affaire la waaw waaye man dafa am gëm-gëm bu nekk ci sama bopp bii di ma travail mu mhm. toog gis ni quatorze dee nañ mhm. man xaw ma Sonko rey xaw ma gouvernement xaw ma ku ci rey waaye loolu daal affaire u état la mais ma toog sama conscience ma xam ne lii am na luñ ma nettali loo xam ni complot la mhm. ma toog di ci bàyyi sama xel nii di ci noppi kon man su ma dee tamit safara laaj la te bàyyi ñas su laa la waaw billaahi su taxawoon wax ma li man a ko dégage ndax man yàlla rek laa gëm te sama moom a ma gënal sama àddina ak lépp lu nekk ci biir xam nga gars yi ñu ngi wax xaalis mhm. su fekkoon xaalis la laa ci bëgg mhm. yaakaar naa ne war naa mën a dox nank dem ci kilifa yi mhm. ne leen de moom laa amee xanaa comme danaa diil ak ñoom man musumaa laaj àddina musumaa tukki benn taalibe mënu laa wax ne la mus na maa dajale Mm-hmm. lépp lu ma am man damay takk sama daal yi di dugg port di dugg marché di jaay di def lu ne mm-hmm. pour am lii mooy wax ji waaye nag xam naa ni ba ma ciy dugg nit ñi ñu ngi may saagaat yooyu yëpp dama koy anticiper ndax maa dugg ci coow ku dugg ci coow dangay nangu mm-hmm. ndax ba ma ci dugg tamit xam naa ne li ma ciy fekk tamit te pare naa ko te yàlla rek sax lii mooy wax ji du leneen jubluwuma pour toroxal kenn nee naa leen nañ leen waxtaan suñu biir waaye waa affaire yi ñoo toog di bës di bës di wax loo xam ne dara wóoru leen ba démb sax El Hadj Diouf maa koy seetaan soo bëggee xam ndax lii dëgg la wala du dëgg gis nga ngoonee bu seen bës. waaw journaliste. ngoone ngoone déglu na ko ba mu jeex. Mm-hmm. soo bëggee dégg dëgg. Mm-hmm. ki nekk Cissé te mu nekk 7TV xaw Sénégal set mhm. xam na ci dara ñi ci ñi ci xam dara ñi ko xam ne amuñ ko waaye dégg nañ ko nee naa la gis nga El Hadj Diouf mhm. nii may waxtaan ak yow noonu laay waxtaan ak maître damay dem këram le dix mars bi muy def mhm. conférence de presse le dix huit de kii bokk décembre maa moom ñoo toog café de Rome nga yàlla mi ñu fi xam na ni ñii jege Adji Sarr ñëpp dañ ma dañ ma def confiance parce parce man dañu gis sama dëggu mais man nag mhm. du ma dox ci lu lëndëm mbaay mbay boo déggee gisee may wax ak yow nii mhm. boo gisee may wax ak yow nii mhm. dama dul dox ci lu lëndëm moo tax jàpp naa ne bokk naa ci ñi la gën a sonal ci semaine bii ci message ak kii ndax man dama bëgg a xam man dama def soxla xam ma dox ci lu lëndëm moo tax billaahi wal kitaabi lii lii ma dégg nga koy wax nii man ma am ci ay preuve yu leer leer na nii la demee Mm-hmm. boobaa ngay xam ne Baye Mbaye man maa la gën a weex su la neexee waaw su la neexee xam nga bu Mamour Diallo bi waaw boobu tamit mun naa la ko yónnee parce que boobu ari wu ma ko moom moo ma ko yónnee amul benn problème man xoolal bu Mamour Diallo bi fi ñuy soogee waaw ma wax la ma wax la ba pare soog la ko yónnee billaay wallaay tala Mamour Diallo bi waaw dafa wax ne mm-hmm. moom Mamour Diallo ne ko mm-hmm. aji foo demoon boobu fekk dafa fekk aji daw waaw ba mu demee tey xam nga ne lii may wax ni ku gisul aji xaw ma fan la koy xamee amul fan nga nekkoon mu ne ko dama demoon fi nga xam ni mooy ci police bi ko doon garde waaw këram la nekkaloon ak moom waaw waaw mu ne ko waa aji ñëwee bi ñu waxtaan ñu mun nañoo commencé wa keroog moom moo fa toog ku tudd tonton ku tudd Viviane waaw ñu toog di waxtaan mënu ko mënu ko ñoo laa toppatool passeport léegi mhm. ndax lañ doon lijjanti lépp yaa ngi dégg mënu mhm. ko lijjanti boobu fu nekk ni ku la lijjanti passeport police bu ko def dañ lay tëj li nga muñ mhm. moo ëpp li ci def dañoo bëgg rek nga muñ am na nag loo xam ne yow sa niveau àggu fa yaa ngi dégg foofu sa niveau àggu fa loolu da nga koy bàyyi ak ñun waaye lépp lu ñu waxante woon ak lu ñu pare woon a def incha allah maa ngi ci duma ci musa day kon nu ma la ko xee dinaa la dimbalee sa tonton laa sa baay laa ba mu demee ba ci fin bi nag mhm. ci fin yow su fekkee na borom xel nga dinaa la ko yónnee de man maa la waatal ci alxuraan dinaa la ko man kay baay may borom xel a tax ma lay déglu nii yaa ngi dégg su fekkee borom xel nga Viviane mi ngi làkkanteeg moom séeréer ci suuf waaw waaye ci olof bi mu ko làkk mu ngi koy wax na ko mhm. eh burrus waaye jàppal ne comme sa tonton rek nangam nangam xam nga mu toog ba mu ne ko ma defaral la café mu ne ko non café non ma taaleel leen ventilateur et les enfants jóg leen jóg leen ñu dem ci néeg bi bàyyi leen si ñi defaral la café mu ne ko mu ne ko non non ma taal clim mu ne ko bul taal clim bul taal ventilateur bul taal dara. Mhm. xaaral sax ma fay sama téléphone balaa ñu maa dérange. waaw te su fekkee ne boroom xel nga xam nga ne am na la fa nekk am na la fa dem. Mhm. man maa la wax ci jëmm rasulullahi bi ma gëm mhm. ak yeneen. bii moom aji saar moom ma ko yónnee dama ko yónnee waaye yeneen yi moom gën naa sama responsabilité même su may dugg kaso sax mm-hmm. naa ko arrêté mais def naa ko addee Sénégal mm-hmm. maa ngi la ko yónnee nii baax na Baye mbay man kay loo ma ci yónnee dinaa ko déglu attentivement te dinaa la woo maa ngi la koy bu Mamour Diallo maa la koy yónnee nii man maa la ko wax maa la koy parce que ñun dañoo nekk organisation boo xam ne dañuy dox ci droit américain parce que dafa am benn organisation bu ñëw rejoindre ci bi te nag bëgguñu attention leneen di xew moo tax man de américain americain la dama lay wax foofu laa dëkk xam naa foofu bu baax mhm. dama lay wax na la enquête Amérique waaw amul dara lu ko umb te gis nga say mhm. dama lay wax lépp loo xam ne xam nañ ko ci dossier bi waaw suñ demee ba dégg ci leneen mhm. américains yi duñ bàyyi dara mu set seen intérêt rek la ñu xool xooluñ intérêt keneen man ni la wax loolu kay kon xam nga ni man xam naa dox si caaxaan kon mu ngi noonu. maa ngi nii di sama temps nii di wax ak yow. donte maa ngi liggéey sax sooy coupé nii maa ngi lay yónnee ba mu Mamour Diallo bi waxam ak ak ak Gisaar. Gisaar moo ko arrêté Mamour Diallo yóbbu ko. amul benn problème man kay. maa Mamour laaj na ko laaj na ko ndax da nga mos a wax ak bu waat ci yàlla na loolo amul mos a wax ak man. Hmm, baax na mais man jubluwuma ci Adji Sarr toroxal ko ma ci kenn. man kay xam naa i ay ci dimbali ko. dama dama jublu ci yàlla xam ne su fekkee na sàngara ki koy jaay ku koy transporté ku koy def lépp l'islam yéen a bokk kon su ma demee ba nga xam ne ma xam dara ka waxuma ko tamit ci kii te lii ma lay wax nii ci janvier bi la mhm. janvier bi laa ko yëg man li may wax nii yëpp man nag man ñaari fan laa dégganteeg moom ñaari fan bu doon dama lay conseillé man de bu fekkoon sañ naa la conseillé sëñ bi boo ma ci mayee ndigal waaw mooy kay am na ci yoo xam ne comme si yow yaa ngi koy laaye biir waaw yow ci boppam yaa koy wax mu jël engagement boppam. waaw mu taxaw devant public moo gën mu lay batale di la kii euh, bu yàggee mën na dem ba askan bi gisee la leneen moom comme am na ay responsabilité am na gëdd boppam. Mhm. Ah, comme en tant que sëriñ. Mhm. nga jëm ko conseiller pour moom mu taxaw dëggal boppam. Mhm. ah man de sama gëm rek laa lay wax rek sëñ bi ñor. barke Rasulullah noo tuddati sax. Euh? man Abdou Nguer laa tudd. Abdou Nguer waaw billaahi wallaahi tallaahi su fekkee yaa ngi dégganteeg moom waaw laaj ko ndax waxuma bay jooy na ko kaay ma delloo la ci askan bi ci lii nga nekk nii jaru ko mun naa waxtaan jël kilifa yi dem seeti leen waxtaanaat ba yëpp jeex ñu dellu ci jàmm wax naa ko ko Famara nekk na ci man quinze ans seize ans démb rek déggante ne Adji Sarr ñoo gisante ci bët mos xam nga kañ lañ soog a wax mm-hmm. ci janvier bi te suñ defee téléphone yi téléphone bi numéro bi mu ngi nii ñun taal nañ taal kii bi xoolal ñetti yoon lañ wax ci téléphone ñetti yoon wallahi billahi li may wax du caaxaan xaw ma aji saar billahi mosuma koo gis billahi sama àddina mosumaa gis aji saar xaw ma ko hmm. mais ñëw na nga dégganteeg moom téléphone laa dégganteeg moom waaye ñëw na def ñi xam ne mooy formation bi ñëw na def ko fi nga xam ni mooy ci sababul fayda ci munde dëkk bu ñuy wax munde ah sababul fayda bi sababul bi ñëw na def ko formation munde munde hmm. lii moo am mais aw ma loolu ma fekk ci Kourambaké xam nga dafa am xorom man maa ngi ko bëgg a jël man su ma doon jël Kourambaké laay jël man moo may daane que bandi bandi loon jéem a nekk waxuma ak waxuma ak waxuma ak exigence pour la bëgg pour lan koo xam loo koy bëggee koo mu service gars yi dañuy caaxaan dañ bàyyi seen xel yooyu en daal lii lu sérieux la loo xam ne euh, bu fekkee bu fekkee ne Ousmane Sonko mhm. sequt ak dara moom mbir mi demee nii ah attention de man de man de mënumaa weddi ne mhm. mënumaa weddi ne mhm. waa ji tamit sama xel bu ñaaw xaw ma Sonko de waaye man pour man sama bopp man am na lu mu def parce que xale bi tamit mhm. su viol moom xam naa ne amut waaye relation moom am na maanaam sekk nañ dara daal si lu mel ne relation sexuelle affaire góor dara moom sekk dara moom man ba léegi mënumaa bàkkaar na waaye sama xel lim ma jox mhm. am na nu mu fa demee waaw parce que xam nga man man en tant que góor Mm-hmm. yor soxna man damaa yor soxna. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, sama soxna bañ na ko ba huile bi muy maasee depuis problème bi am yàlla mi ñu tiim xam ne daf ko dem jënd. maanaam xam nga mbiru jigéen ñi seeni seen i gaaruwaale rek dem jëndi ko. di di ma ci sànniwaale ay xeer. ay xeer. yenn saa yi mu ne ma kaay ma bës laaj yooyu. mais dama xam ne. góor bu demee ba bàyyi fi kii am. jabaram dem ci beneen jigéen ne dafay faju te foofu du du foofu man dem naa fa. du faju waay yëpp wëri. massage yëpp mën nañ ko. dama demoon vérifier gi man dama gis sama temps. dem mm-hmm. gis nga moomoo bi moomoo Cissé bi nga xam ne moo interviewé woon Adji Sarr. Mm-hmm. damay mm-hmm. waxtaan ak moom man yu bëree bëri ñi ci dossier bi damay waxtaan ak ñoom. parce que bëgguma dox ci lu lëndam man du ma nekk ci organisation boo xam ne. niveau international la man may ñàkkal sama bopp fayda wala may def loo xam ne après ëndëg. on mhm. sait jamais. Mhm. dafa bëgg a dox ci dëgg. Mhm. man bu fekkente ne ñoom relation kese kese la ñu sekk. boobaa damay xam ne ñaari nit lañ mais comme cas viol tudd nañ ci viol rek man damay soxla leeral. moo tax may dugg fu ne. ngeer su ma ci amee lu leer ne. Sonko daf ko violé. ak li ma wax lii yëpp yëpp wallahi man aw ma kersa du tere ma delluwaat ci ci aji. jàpp aji si téye ko jiital ci xeex bi parce que nekk lu ma fi kooku nekk lu ma fekkee man affaire la chaque dañ may gis ma xoloo ci affaire génn duggaat noonu laa mel sama vidéo yu mujj yi soo duggee nga xool Kaolack bay sëriñ sëriñ bu bi gañi man maa tax mu gañi